baal ñaax bu baax a baax ñëpp am jëf. baal ñaax waay yàlla boole baal. yaa ngi yaa ngi fi loolu tamit yaa ngi fi loolu tamit jërëjëf. baal ñaax baal ñaax ñëpp jërëjëf. wala góor baal naa lay amee rëb waaye jërëjëf. baal ñaax baal ñaax jërëjëf. jërëjëf baal naa baal naa baal naa yàlla baal Cheikh baal naa ko baal naa yàlla baal naa ko dañuy génn dem watu ji kon balaa ko seet ak lim suñu waajur yi def yal na yàlla fay la kontaan amul sa fay yal na yàlla fay la jërëjëf Assane baal ñu wax baal nañ yàlla boo na jéggal beneen beneen الأمين صلى الله عليه وسلم آمين آمين عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا على الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أصحاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا నమస్తే బర్యానా పంపు الهدى والسقى والعفاف والغنى اللهم اصلح ذات بيننا جواد جواد كريم كريم العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا برحمتك برحمتك يا ارحم يا ارحم الراحمين الراحمين اللهم اللهم هب لنا ذرية طيبة جواد جواد كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا برحمتك برحمتك يا ارحم يا ارحم الراحمين الراحمين اللهم اللهم هب لنا هب لنا ذرية sama yaay yàlla na fi yàgg te wér yàlla nga fi ñëw ci barke yonent bi sama yaay yàlla na nga fi yàgg te wér mboolem jullit sama yaay yàlla na nga fi yàgg wér sama yaay yàlla na nga fi yàgg te wér Cheikh Amar yàlla na nga fi yàgg te wér Cheikh Amar yàlla na nga fi yàgg te wér jërëjëfati Serigne Touba Waly Balago Seck yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla nga wér yàlla nga am kàttan Waly Waly yàlla na la yàlla sàmm Waly na la yàlla sa ñaari waajur yàlla na yàlla yóbbu ci àjjana yi gën bu mag xam naa ñi nga ci wetu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfati Serigne Touba Khadim Rasoul Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te wér jërëjëfati Serigne Touba